alors gis nañ ne pour ñu renégocier waat contra auto autoroute à péage yi xeex yu ñuy xeex boo leen yàgg xeex la gis nañ ne état bi jël nañ yenn décision yi est-ce que mën nga cee ñëw ak yan changement ñoo am par rapport contrat bu njëkk ba ak léegi. d'accord xam nga euh, ñun sunu collectif mu ngi tudd CCUAP collectif citoyen des usagers de l'autoroute de l'autoroute à péage ñu ngi juddu en mai 2018 renégociation contrat moo ñu teg fii tey jii nii. ndaxte tey jii nii am na au moins waxtaan yi am ba ñu signer contrat bu bees contrat bu bees boobu nag boo ko boo ko waree dison résumé da nga naan benn état du Sénégal dugg na ci capital société d'exploitation de l'autoroute bi ndaxte état du Sénégal amu ci woon dara 2009 ba autoroute bi dàmbale ba tey jii 2021 Sénac moo doon gérer autoroute bi jël bénéfice yëpp moo ko téye woon donc tey jii nii état du Sénégal am na vingt cinq pour cent di capital kon tey bu ñu demee ba autoroute bi def cent milliards de chiffre d'affaires vingt cinq milliards yi état du Sénégal moo ko moom loolu mooy benn ñaar tracé autoroute bi Dakar ba aéroport cinquante kilomètres la te cinquante kilomètres yooyu yëpp effage mu ngi doon fay mille francs pour location espace boobu tey jii nii. ak concession bu bees bi nii dañu ne deux pour cent du chiffre d'affaires la donc maanaam bu état du bu Eiffage defoon dix milliards de chiffre d'affaires deux pour cent de dix milliards la ñuy jër mu doon la location du foncier mais bu néewee ba néew c'est au minimum huit cent millions par an loolu mooy deuxième point bi troisième point bi ñu ne léegi c'est à la charge du concessionnaire autoroute bi yëpp dinañ ko éclairer quatrième point bi dañu jàpp ni euh, autoroute à bi ñaari contrat la woon parce que y avait Dakar Diamniadio après jam Diamniadio AIBD ñaari contrat yooyu dañ leen di jël tënk leen ci benn contrat mu nekk benn contrat Dakar AIBD donc loolu mooy cinquième point bi quatrième point bi pardon cinquième point bi dans la gouvernance de l'autoroute état du Sénégal da ciy dugal loxoom parce que bu njëkk ba Eiffage moo toogoon di def lu ko neex te kenn di soon léegi fu mu toll nii état du Sénégal day dugal loxoom et sixième point bi l'autoroute devient une un patrimoine de l'état du Sénégal dañ ko boole ci moomeelu Sénégal fu mu toll nii donc yooyu noonu yëpp ak yeneen point yoo xam ne cité wu ko yooyu moo si nekk mais dans tous les cas ñun collectif bi par rapport ak fu ñu jógee par rapport ak ñu amul woon dara lii on s'en satisfait parce que lu amul woon bu amee da lay kontaan ka yoroon sa kër ko yoroon sa terrain tabax si kër te ba ngay tabax kër gi yooyu yaa ko jox suuf yaa ko jox ciment yaa ko jox feer mu tabax kër gi ba pare di louer kër gi di encaisser di dugal si poosam bu la nee kaa ñu séddoo da ngay sant parce que amoo ko woon donc noonu la mel fii donte le terrain bi yaa ko moom ak yooyu noonu da jàpp nañ ni la mu néew néew néew lu ñu ciy am ni comme amuñu ko si woon dañ ko sant waaye terewul nag dañuy wéyal xeex bi ndaxte am na yu bëri yoo xam ne amul te war na am ndaxte tey jii nii ñun jàpp nañ ni vingt cinq pour cent yooyu ñu jox état du Sénégal dafa tuuti war état du Sénégal war na am lu ëpp loolu parce que dama leen di jox benn exemple ñu ngi wax waxu port de Ndayane port de Ndayane c' un port boo xam ne c' est huit cent quarante millions de dollars d' investissement sur les huit cent quarante millions de dollars d' quatre vingt pour cent waa Dubai Port ñoo koy indi état vingt pour cent la fay indi mais ba ñu defee seen actionnariat état 40 pour cent la am ci capital bi mais nga jël autoroute bi 380 milliards de francs CFA d' investissement 319 milliards yi état moo ko dugal te état amoon 0 pour cent dans le capital donc vingt pour 25 pour cent yooyu ñu am jàpp nañ ni début la dafa tuuti war nañ ko mën a yokkaat te buñ ko yokkee moo ñu gënal beneen bi. de Patte d'Oie à aéroport y a que des yu ñu traversé mais mairie yooyu war nañ nekk ci capital bi parce que ñoom la seeni population di dund ay désagréments yoo xam ne autoroute bi moo leen ko teg tey jii boo demee jàmm gën Sicap Mbao am na ñoo xam ne pour ñu gisante dañuy wiiri ay wiiri yu sori parce que autoroute baa jaar seen diggante mais ñooñu nga tegal nga tegal désagrément yooyu ñoom ils en retour ils gagnent ko ils gagnent absolument rien donc forcément ñooñu il faut ñu xool leen donc loolu gisaguñ ko ci contrat bi gisuñu tamit ne wàññi njëg yi parce que ñu loolu aussi ñu ngi koy xeex di ko jooy autorite bi dafa cher tey jii ñii di jóge Dakar di dem liggéeyi jam ñaajo parce que sphère ministérielle ñoo fa nekk il dépense 2800 par jour sur le péage 2800 par jour c'est à peu près 60 000 francs par mois rien pour le péage te lekk ñëwagul carburant ñëwagul leneen ñëwagul ci ay salaire fonctionnaire yu tuuti dafa cher kon war nañ xoolaat njëg li ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dinañ ko gën a xool ñu ngi koy xaar mais pour l'heure ñoom état lu état du Sénégal lu mu signé ak euh, Eiffage nañu ko publier ba sénégalais gis ko après ñu mën a continuer waxtaan bi ci mbir.